aw tiis aku naqar ci diwaan bu Touba ci famille bi sant Ndiaye ñoom ñi seen doom ji di wuyoo ci turu Cheikh Ndiaye ay atam toll ci juróom fukk moo ñàkk bakkanam ci dàqante bu doon na ko amal ci digganteem ak ñi nga xam ne ñoo di duwaan ba mujj ci ñàkk bakkanam ñi nga xam ne nag ñoo di ay mbokkam meer ba futtu la ñu def ci mbir mu ni mel. Eh, danaa am suñu doom yoo xam ne di suñu rakk di suñu taalibe di taalibe suñu Modou Kara Sylla yaakaarul may daaru yaakaarul may dëkk si fii di daan dooleem. yor ay soxnaam yor ñaari soxna ak fukki doom ak juróom am amul lu ma juróom fukki at ñoom ñi def seen ginnaaw taskatu xibaar yi ñu ngi dikkaat ci mbir mi ni mu demee. duwaañ yi dàq ko ba mu dugg fii ci dëkk sëriñ Touba bi gis nga buñu ko sëñ bi gis nga sëñ sëñ baa nga ne kon jumaa jàng yi ji ji ji jullee ñu dàq ko ba ci buñu ko sëriñ bi rey ko reyeen wu ñaaw wax na fa mu bépp na leen. ndax niñ ko reyee mooy am xar sax boo ko yoon di ko ba rey ko war nga ko suturaal waaye biñ ko reyee ñoom daañu pare dañ koo xëcc dugal ko ci bëcc ko fee takk oto ba yóbbu nga xam ne si soxna si nga xam si moo nekkoon ci koñ bi moo mujj mu xol bu mu muñ ko mënatu koo muñ mu la ko jël ab mbalaan ñëw andi ko jox ko benn paa doon ko ëpp ndekete ki ñu ëpp dee na ba yàgg ñu mu soxna si suturaal ko fa kon loolee loolu naqari la. ñoom ñi dey ñu xam xamle ne mbir mi ñu ngi koy ñaawal ba fa mu yem waaye lépp ñu ngi koy bàyyi ci kilifa dëkk bii di Serigne Mountakha Mbacké. naqar bi nag lim ñu naqari naqari naqari naqari ñoo ngi dellu santaat Serigne Touba di santaat borom Darou Mouhty ndax taalibe Serigne Touba lan yaakaar Serigne Touba gàddaay ñëw fii kii nag sàccut fi nut daan daan dooleem di dund aw ñaqam ak njabootam koñ ba mu dëkk ñëpp xam nañ ne moom jàmbaar daanu na ndax koñ bépp moo leen di gardeel guddi ci ab sàcc dafa dugg kon loola Sénégal gépp lañ koy seere lii ñu ko def nag nu ñi xam si famille bi sant saar ak ñu sant Guèye ak ñu sant Mbacke na leen kon ñoo ngi koy ñaawlu ñoo ngi koy jooytu ñoo ngi koy métitlu Cheikh Mountakha mu baax mii nga xam si moo fi nekkal Serigne Touba kenn ku nekk gis na ko li muy def ci njabootu gis nañ ko ak bëggul benn taalibe bu sonn bëggul benn taalibe bu mer lii nag li muy métti métti métti métti li mu naqaree naqaree moom la gën a naqaree ci kër àddina ba mu dafa dem ba mënut ko xal boppam sax nga xam ne am na naqar am na lu ko métti waaye nag ndax bu ko taalib Sëñ Tuubaa bëggul dara xori kon buñu demee ba taalib Sëñ ay douane reyee ko nii wàcc ko fi lakk lakk seen oto dem loolu ñu ngi koy ñaawlu ak njaboot Sëñ Tuubaa gépp ñu ñu ngi koy ñaawlu. ñoom ñi dee ñuy ñaawlu te kaaralu kilifa yi ci mbir mu ni mel tax sax ñu yëkkati seen kàddu ngir ñu jox leen seen doom ñu mën koo jébbal seen borom. waaye nag nit koo xam si da ko koo rey démb ba tey mu borom mënuñu saa jot ba fi may wax yi gun ko bët néew ba ci pexe mën ñu koy def ngir bokkoo jot waaye ba fi ma taxaw teguñ ko bët kon nag sëñ Mountakha mi ñu yaakaar gannaaw yàlla jëmi Sëriñ Tuubaa nañ ñu jox suñu néew ñu den denc ko la jot ñu bàyyi ko Sëriñ Tuubaa nag ak sëñ Mountakha moom dëkk bi di ko naqar di wéy ci famille Ndiayeen fii ci diwaan bu Touba ci seen doom ji dem di wuyoo ci turu Cheikh Ndiaye